rattanga caayi rattanga sama quartier bu rafet bi fi ma dëkk fi ma juddoo fii ay aada yu bari ñoo fi daje soorootu jumaa yi dañuy waxtaan ak cloche église yi yu bees yi dend ak kër yu màggat lii mooy rattanga hee sama xarit yi ñu dem seeti rattanga ak centre de santé am docteur Moulay assistant ak Corsa ñoo ngi ñu fay xaar. kii sama malade la bu mu ëmbee ba tey maa ko nekk di ko suivre kon boo koy faj man mii maa la war a assister. Corsa euh, dégg naa. kii dafa sonn Corsa te soxla ñu seet lu ko dal urgence la. yow foo teg sa bopp yow gan gi a ah, léegi daal yow yaa may jàngal sama liggéey daal. yeewul Aminata Aminata non non. aywa ñàkk naa sama doomu waay. mbir mi doy na waar de. <laughs> maa ngi taal sama rajo waaye dama ne ku